Uh, laan bikum fichier électoral bi baax na mën nañ cee wote amul benn sikk ña bàyyeekoo bitim réew te ñu dénkoon leen càmbar këy di ñu war a wotee def neen seen liggéey ba ba noppi ñoo xam la li ni mel la soleil yéene kaay yeggee ñu ko zéro doublon moom lañ ca nemmeeku maanaam xamul kenn koo xam ne fa ngaa bindu ñaari yoon ci biir fichier bi wala am ab mineur bu ci nekk déedéet gaañ a càmbar nañ ko lañ bët ko liggéey nañ ba noppi laas yéene kaay dëggal ko na la ñu tënkee nag ca seen liggéey ba ñoom expert yooyu ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi mooy ne fichier bi mën nañ cee wote baax na kuréel ak kujjeg politique gi nag na leen waa baax na ñun suba danañ xamal jana taskatu xibaar yi lépp luñ ca gis lu normal fañ koy wax wal fajiri yéene kaay ne ma wax leen secret fichier électoral bi nga xam ne ña ko doon contrôler waa Malaisie lañ te fi ni képp koo xam ne bëgg ngaa jot ci fichier bi foo nga am autorisation Malaisie lañ nemmeeku nag mooy juróomi téeméeri a a jàppale ci élection maire yi ngir mbuqi gaañi critique yéen a kaay ñu ko xamal l'observateur na ko waaye Macky Sall nak su bàyyi wut nii muy wax ak sénégalais yi boo moytu dana am mbetteel ci wote yi di ñëw de yaw seetal Macky fi mu toll ni saa bu waxee wax toj toj fay nappaate fay xupp buy wax ak sénégalais yi fay tàngal mel ni ku yor ay doomam bërki démboo njaay li wax ci autoroute à péage bi dégg ngeen ko su fekkee fa cher ko amul fii nga dem fële di dëgërël ñi seen màcc ci wàllu communication rafetluwuñ ko ci yéen kaay bi keneen ku rafetluwut kàddu njiit réew Macky Sall mooy Sidiya Njaay Macky de yow seetal Macky xam nga fa wax ne du yokk atu àla traité yi ndax ndaw ñaa ngi taxaw bëgg liggéey kon ko am juróom benn fukkaat fa ngay noppalu Sidiya Njaay na ko yow ñi nga xam ne ñoo la wër nekkuñ ay njigit nekkuñ ay paa ay màgget lañ te yaa ngi leen liggéey loolu di leen fay xaaj du xaaj du jeex ay vétéran lañu loolu fa ñaaw ñeneen ñu ñaawlu kàddu Ismaïla Madior Fall yi mooy waa rado yi Afrique ak ñoom seen société civile bi ñeneen Ismaïla Madior Fall li mu wax ci parrainage su CEDEAO bi mu sant Sénégal ñu dindi ko ñaawlu nañ ko de nu ñuy waxee nag xamal le mandat yi ne kaay ne Macky kay ku jege opposition bi fañ koo daggate attaqué ñaawlu kàddoom yi mu wax jëmale ko ci sénégalais ci autoroute à bi critique yéen a na leen Macky sax fa xam lu ko doy lu mu war a lijjanti gis ngeen palem bële guerre rayante ku nekk bëgg place ak gën a fës ba tax yéen bi ne coup d'état moo xam ca cabinet Macky ba l'observateur na leen ci jamono jooju ñuy rayante Macky moom mook soxna Marème Faye Sall fa ñoo demoon ma a kaay fekk fa ab a jàng foo ko jigéen ba Rahma Ndaw la tudd léegi nag américain yi fañ koo sargal samedi bi weesu ci ak karañam léegi nag fañ koo bëgg a jël nangu ko ci loxo Sénégal def ko mu nekk américaine jëriñoo xam-xamam ba waaye xale bu jigéen bi ci boppam fa bañ nee na moom am lu dul Sénégal ay waa juróom tamit bañ la ko jamono ji nag ñu ngi bëgg a wax ak njiitéeram Macky mu dalal leen waaye sottee gudde li sott démb nag ci àdduna bi yëpp ne mooy mbooleem taskatu xibaar yi ñoom la ñu jagleel ba su démb bi si du quotidien na fii Sénégal moo xam Ndakaaru Njaay Kawlax Ndangaan journaliste fa ñoo génn wàcc ca mbedd dem ca seen gouverneur ya sol ay yére yu xonq cur takk morso yu xonq doon ñaxtu ñaawlu seen nekkin ñoom journaliste yi a yaaw seetal kuy sonn Sénégal journaliste yi la gën a sonn ba pare ñu leen di xoqatal di leen bunduxatal di leen tëkku na dañ leen di rey di leen tëkku ak a xupp loolu nag fa ñoo bëgg mu dakk te mooy yéen a kaay ne toogaanu ñaxtu lañ xamal ngir ñu may leen seen jàmm ñu def seen liggéey te ñu bañ leen di xupp wala fa jëri yéen a kaay naka moo taxi démb journaliste Sénégal yëpp ci seet yu xonq mer ba xonq moom la ñu xamal ci mbedd yi info yéen a kaay réew mi yéen a kaay ba ca libération ne nekk ni kay fa ñoo bëgg mu gën a ñoŋ la ñu ca xaalis fayeeku te ñu bàyyi di leen tëkku waaye tamit méccam taskatu xibaar mi fañ koo bëgg a raxas setal génnee ñi nga xam ne bokkuñ ci di ci wax wala ñu ci bind ay tooxi doona rek ba tax libération na taskatu xibaar kay mer nañ waaye la leen naqar yëpp wax nañ ko démb nay leer la mu ñu wax moom turbine yéene kaay mooy xam na ab sondage bu tudd Kantar wane na na Sen a a a xam ne FIFA nangu na ñu footballee fi tànneefu coupe du monde 2022 ba tax na Sénégal ñaari jogante bu njëkk yi xanaa mu dem Mauritanie wala Guinée àbbi ji fa terrain foofu lañ koy footballee de ba tax te mooy yi ne kaay ne lii nag mooy tooxi doon a gàcc dëgg dëgg dëgg ci Sénégal benn stade baax sax amuñ ko stade yi ne kaay jongante City Paris tey la de waaye fa mel ni Paris du ci génn de ndax fañ ko mbuqi woon 2-1 dëkkam réew mi yi ne kaay moom di ñu xamal benn doomu aadama bu ñàkk bakkanam ca joxeen juróomi nit xam ci ay gaañu gaañu ak ñaari gaañu gaañu métti ca ndengaleer jàppante diggante baykat ya la woon ak ay également Babacar Ngom Sedima le quotidien yéene kaay na saison 2 ba moo tàmbali ci diggante Ndengaleer ak Babacar Ngom fitna ja xeex ba tàmbali waat na de lii yéene kaay na jàppante yu métti moo fa am na benn élément Sedima fañ koo gaañ moom itamit Bassirou Diomaye Faye bokk ci Pastef ne Macky rek moo mën a jeexal coow li ndax moo signé décret bi jox Babacar Ngom suufu baykat ya te baykat yi nee na seen bakkan la leen jaral direct ma ngay a ko ñu xaadim nag bëgg koo nangu samay sa baay maa di ko ma ne moom laa war a joxe ngir valider sama registre de commerce bi ba tax moom waa mu jàpp ne ñi yor wàllu yoon ci biir réewam ñoo koy toroxal ak méttital ñi bëgg luñ dundee jaral leen ñuy jaay seen bopp di ay soxna tey turbine yéen kaay nee na xale jigéen yi jaay seen bopp téeméer boo jël ñeen fukk ya ak ñaar fa ñoo jàng ba yëy kayit yi xam seeni diplôme li liggéey ñàkk xëy yaakaar gu tas moo tax ñuy jaay seen bopp <laughs> ah, yaaw seetal kenn ci xale jigéen yooyu ci info yéen a kaay nee na man ñaar fukki at ak juróom-ñaar laa am xam naa li jaay sa diplôme master 3 ci wàllu transport logistique waaye gis nga su ma amee client xale bu góor bu ñëw fay ma bañ tëdd ci kawlal bi ma koy jaay sama bopp damay rus gàcce laay xam waa ma ne bu la yëfi tollee noonu ci ak gàcce nga bañ a jaay sa bopp mar naan bu la tax a naan póotit yàlla jeexut wëyal di ut liggéey dee ci ak ñàkk sax gu ak ngor moo gën jaay sa bopp liggéey faa xamul sax lu la teree wuti jëkkët sëy